on avait créé ce mouvement au nom de l'Albes, dans la banlieue. C'est pour laquelle aujourd'hui on est là pour le lancement du mouvement, pour montrer au Sénégalais que le mouvement a été créé dans la banlieue et ce sera lancé aussi dans la banlieue. Ouais. Le mouvement est composé d'abord des jeunes très engagés, très convictionnés et encore très déterminés, qui, se, qui, les efforts inlassables vraiment pour le développement de la banlieeux. Et si, si ces gars vraiment pour euh, appuyer son excellence le président Macky Sall et appuyer aussi son excellence Mamadou Diouf, je dis carrément que on est très content de ce mouvement aussi. L'objectif de ce mouvement, c'est simplement aller ensemble, veiller ensemble et aussi pour aider les gens qui sont dans la banlieue. En, faisant des, projets, en aidant vraiment nos jeunes qui n'ont pas d'emploi avoir des emplois. Parce que nous faisons de la politique. Et qui dit à son instant aussi vraiment d'aider les gens qui sont dans la vie. Il y a des jeunes qui sont diplômés, qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Il y a des mamans qui sont là, qui ont des projets, on n'a pas là où les aider. Avec ce mouvement prête, euh, nous pouvons s'enrichir, Inch'Allah, sur beaucoup de choses. Wow, l'État c'est très simple, tout simplement, parce que nous avons créé le depuis euh, mois d'octobre. Nous avons une massification, pratiquement, parce que nous sommes dans te aussi non seulement on était à Yëmbal on était à Malika demoon nañu Kër Massar dem Malika dem fépp ba tey na ngi tudd waaw a jóg c'est très simple mooy ay zones yu yu engagé pour jéem xool nan li mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw comme jàppale aussi ñi nga xamante ne ce sont des ñi nga xam dañoo jàng am seen lijaasa am liggéey jàppale aussi fu ñu déposé ba ngay appelé leen pour vraiment seen projet yooyu am à l'avant loolu daal moo tax a jóg mouvement bi pour l'instant waaw ci lu bëri ah ñi ci lu bëri dinañu ñuy a xool ku nekk fi nga ne ñu dem waxtaan ak yow xool yi lan mooy sa problème

li ma lax wax léegi nii ñi nga xam ne dañoo am projet bind ko xamuñ fu ñu koo déposé ñu xool ak suñu leader di Mamadou Lamine Diouf ki nga xam ne ne peut-être tey am na connaissance fépp ci réew mi ñu ànd ak moom mu xool lu ñu jàppale jeunes ñu liggéey suñu yaay ñi nga xamante ne aussi ñi ngi fii di daan doole amuñ fenn fu ñu amee euh, mu jàppale ñu suñu yaayoo am xëy jeunes yi aussi ñi nga xamante ne ñi ngi toog fii am jeunesse bi am diplôme amuñu xëy ñu xool fu ñuy jaare ak ñoom à travers son Excellence Mamadou Lamine Diouf ñu xool ba ñu leen utalee liggéey xëy nag ñëpp mënuñu ko amee dinañ def suñu kéntu lay kattan ba xool incha allah bu dee à 100 pour cent dañ ko xool à 50 pour cent ci turu Albès ak son Excellence Mamadou ñu mën a jàppalee en grosso modo loolu la